Allahu akbar Allahu akbar laa ilaaha illallah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار إخوة الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم قال تعالى إنا أنزلناه عليك القرآن inna anzalnaahu qur'aanan arabiyan laallakum taaqiluun doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu doole ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bés pénc doomu ndey mbokk jullit ñi ci mawdu biñ nekkoon ajuma bi passé mu ngi nekkoon si suñu taxawaay ci alquran ak ñàkk jox gëdd bi nga xamante ne jox nañ ko ko ba mu jural ñu jafe-jafe yi nga xam ne ci la ñu nekk ba léegi ci mawdu boobu la ñuy continuer di gën a yeesalaat suñu taxawaay ci li nga xamante ne mooy téere borom bi subhaanahu wa taala ci xutba bi passé waxoon nañ ne dummooyu bi ñu dummooyu alquran moom moo tax ñuy nekk ñuy dund dund gu metti gi ñuy dund waaye du ci yem xëy na bii ci àdduna buñ ko dundee ñenn ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo dum mooy alxuraan dañuy dem ba yóbbaale sax ñi ci nekk ndax bu jafe-jafe yi ñëwee ñun ñëpp ñoo koy dundadoo waaye allaaxira moom foofu nag moom jëf-jël la fii ay du yam ci bopp boroom la ñuy dund waaye yowmal xiyaam moom bu ñu ñëwee fa yàlla foofu nag moom ku nekk li nga jëf loolu ngay dund loolu mooy différence bi kon ñu ngi ñaan yàlla boole ci ñoñ ñi nga xam ne ñooy taxawal alquran guddi ak bëccëg loolu yomb na yàlla yàlla nañ ko yàlla boole doomu ndey mbokk jullit ni yàlla mu ngi wax ci alquran mu ne moom moo wàccee téere bi inna anzalnaahu quraanan arabiyan ci langu arab waaye laallakum taaqiluun ndax ngeen xalaat ci loolu alquran dafa ñëw fekk ay téere yu ko fi jiitu comme ni nga ko waxee woon ci xutba bi passé yàlla jaarale ko ci ay yonent yu jiitu yonent yàlla muhammad waaye yonent yooyu yëpp ku ci ñëw sa téere wala ci say wax annoncé nga ñëw bii di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci Isa mu mujj muy Jésus mu ñu xam ku dem ci évangile da nga fay gis ne yàlla annoncé na ñëw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran ñëw dëggal loolu ci kàddu Isa ibnu Maryam kon noonu ñu doon annoncé ñëw yonent yàlla muhammad ñu ëpp si ñoom bu du yonent yi waaye lu ëpp si ñoñu yonent yi ñu doon woo te de génnul banu Israël muy doom Israël ndax yonent yëpp daanaka fa la ñu wàcc ñoom ñëpp lu ñu doon xalaat mooy katu ñëw yonent bu mujj bi te sauveur lay doon ndax mooy nekk sauveur humanité ba tey ci banu Israël lay wàcc ñoom loolu lañ jàppoon mosu ñoon xalaat ne yonent bi dina génn fudul ci ñoom moo tax bi yonent yàlla Muhammad ñëwee wàcc arab yi loolu nekk benn mbir mu rëy ci ñoom ndax mosuñu ko xalaat te yonent bu ñëw yàlla jox na la téere te téere yi leen yàlla yàlla doon jox ci làngu seen ñoñ la doon wàccee boo xoolee lu mel ni bible bi ñuy wax muy évangile boo xoolee lu mel ni tawraat bi ñu wax boo xoolee pesum bi ñu wax ci langue hébreu la wàccee parce que seen langue boobu moom lañ doon waxee ak seen ñoñ ñoom ñu yàlla yónni kon message bi pour mu jàll ki yàlla yónni ñoñu ñi mu ko yónni ci ñooñu lay langue bi di wàcc te ñoom seen yonent dafa yamoon amoon limite amoon fu mu yem comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma arsalnaaka illa bani banu israil yàlla dafa ne dafa ne Jésus ne ko dama la yónni ngir rek ci waa banu israil waaye nag bu dee yonent yàlla Muhammad yàlla daf koo yónni mu nekk rahmatan lil alamin yërmande ñeel ñépp amul limite képp koo xam ne fekkee na ñëwam rek yaa ngi ci biir mu jox ko téere boo xam ne téere bi ci langu arab la wàcc langu wa wàccul ci lang yi téere yi ko jiit doon wàcc ngir lan laallakum taaxilun ngir ñu mun cee xalaat kon loolu xalaat bu rëy la ci nit ki war a def xoola fi yàlla jaarale yonent yi ba fi mu indee yonent yàlla muhammad mu wàcceel ko téere boo xam ne mooy ummul kitaab mooy té mooy mooy mooy yaayu téere yépp waaye mu wàccee ko ci langue bi nga xamante ne mooy langue bu ñu miinul woon ne téere yi ci lay wàcc loolu war nañ ci xalaat ban jàngat lañ ci war a am jàngat bu rëy lañ ci war a am mooy que ne téere bi dafa ñëw ci anam boo xam ne yàlla mun na wax ak nit ñi ci anam bu nekk mooy premier jàngat buñ ci war a def dañ ciy jàngat tamit nekkate mbir yi bay sa weewu tànk la yonent bi arab la woon yàlla yónni ko ci biir arab yi waaye mu nekk yonent boo xam ne yonent la ci ci ci alam bi yépp te alam bi yépp dégguñu arab alam bi yépp dégguñu arab te téere bi war na message bi war na ñëw ci ñoom foofu dañ fay jàng moo tey moo waral suñu xutba bii ñuy def di ko làkk si làkk bi ñu dégg moo tax taxaw taxaw ci aaya boobu seetlu ko dafa laaj jàngat bu bëree bëri bëri bëri bëri bëri yàlla dafay wax ak ñun ci anam yépp waaye téere bi yàlla te xam naa ne mooy nekk suñu toogaayu deuxième ci ban anam la ko yàlla wàccee te nu mu ko wàccee ba nga xamante ne ñun ñii ñëpp bu téere bi yegsee si yow di nga ko mën a comprendre di nga ko mën a jàng ndax yàlla moo ko doxalee noonu donte langue arabe la moo tax léeg-léeg da ngay gis benn imam si surtout suñu imaamu xurumi di jàng alxuraan toll foo xamante ne yow mi déggul arab sax da ngay jooy lan moo waral loolu mooy ne que jeexitalu alxuraan bi day dem ba day tàbbi sa xol am lu mu def ci yow kon loolu ay secret la yoo xam ne du sax secret waaye ay ay aaya la yoo xam ne yàlla moom moo ko def ngir wane dooleem ngir wane tamit doole màggaayu li nga xam ne moom mooy téere bii di alxuraan doomu ndey mbokk jullit ñi am nañu téere boo xamante ne lu ëpp si suñun dañoo jàpp ne rek benn téere la benn livre la wala lañ ko jàppee lu oyof te fekk dafa bokk mu nekk farata ci nit ki maanaam lu ñu tuddee obligation farata la ci nit ki mu jàng li nga xam ne moom mooy téere bi di alxuraan c'est obligatoire mu jàng ko c'est obligatoire mu jàngal ko li nga xam ne moom mooy mooy njabootam obligation la nekkul loo xam ne rek comme su ma neexee jënd soleil liir su ma neexee jënd le quotidien liir wala ma jël une si lengu lettre bu Mariama ba liir demeewul noonu alxuraan dafa nekk téere boo xam ne farata la nit ki jàng ko te kon pour nit ki nekk pour nit ki jàng ko te farata la ci moom il faut mu jàng li nga xamante ne mooy ijj te buñ ne ijj mooy langu arab arab yi benn xeet la waaye li nga xam ne mooy langue arabe si boppam yàlla moo ko tànn moo ko favoriser bu ñu gis ne naari ñoom ñoo ko moom déedéet langue internationale la te fii ak ñuy gën di dem yàlla mu ngi koy gën di prouver fii ak ñuy gën di dem ñu ngi gis position arabe nu muy duggee bu njëkk dañ doon wax français ñu dem ba ci biir si côté enseignement laay wax ñu dem ba ci biir nga dégg ñuy dugal anglais espagnol mais léegi ñun ñëpp xool nañ ci àdduna bi nit langue arabe di ñëwee du dugg te loolu suñu mbiru àdduna la waaye yow mal xiyaam ëllëg ak jàmm bu ñu duggee àjjana ñëpp ay làkk arab loolu dafa war a leer langue bi ñuy làkk ëllëg ak jàmm àjjana arab lay doon kon naari moomuñu arab ñun fii suñu réew Sénégal tubaab bi moo ñëw coloniser ñu changer suñuy doxalin yu bëree bëri bëri waaye lu mu fekkoon mag ñi daan bindee daan ko communiquer langue arabe la woon. loolu moo nekk bu ñu daan bind lettre arabe lañ ko doon bindee suñ daan jëflante arab lañ ko doon bindee te langue arab moo nekkoon favori si ñoom léegi nag langue lu am solo la luy doxal réew wala luy doxal duggante moo tax bi colonialiste bi ñëwee fexe tout pour jëlee fi loolu implanté fi li nga xam ne moom mooy langam moom pour mun fee sax lii moo nekkoon xeexu mag ñi ak ñoom kon bu ñu jàpp ne alxuraan benn téere livre la nii rek langue arabe bi tam bu ñu ko jàpp ne rek naari rek ñoo ko moom déedéet langue internationale la te pour nga dégg alxuraan il faut nga jàng li nga xam ne mooy arabe kon suñu taxawaay bu njëkk ci lii la ñuy taxaw ñu bàyyi xel bu baax a baax marqué attention boobu noonu ñu xam ne téere bi ñàkk koo toppatoo moo ñu yóbbee lii yëpp waaye nag il faut que ñu ñaax suñu bopp ñaax leen ci yan taxawaay la ñu war a def pour mën di nemmeeku li nga xam ne moom mooy téere bi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu ndeyu mbokk jullit nii yàlla mu ngi wax ci alquran wala qad yassarna alqurana li zikr fa hal min muddakir yàlla mu ne man maa wàccee alquran maanaam wala qad yassarna maa ko def ay faram fàccee moom alquran wàccee ko ci yéen ngir lan ngir mu nekk loo xam ne lu yomb la pour ngeen jàng ko mu nekk lu yomb loo xam ne pour ngeen koy fàttaliku doomu ndeyu mbokk julli ñi alxuraan yàlla bi mu koy wàccee global daf ko wàccee global ci benn guddi bu barke ñun ñëpp ñu xam ko comme ni ko yàlla waxee inna anzalna fii laylatul mubarak inna anzalna fii laylatul qadr mu wàccee ko en global teg ko ci benn place fii lawhi mahfuz waaye ci foofu la koy jibril di jëree par fragment di ko wàccee di ko ñëw jox yonent saa salaam waaye da doon tombé par circonstance tamit ci loolu moo tax nit ki mën a jàpp alxuraan takk ko ba tey su koy expliqué wala mu koy tafsir mën a jaar ci histoire yooyu mu wàccee te histoire yooyu mooy continuer di répéter ba suñu génération benn exemple rek lañ ciy jël du pour propagande waaye dafa fekk mu tombé ak jamono nga xam ne laal na unanimité Sénégal yépp muy histoire njaaloo boo xamante ne kii nee na dañ ko tuumal kii nee na dañ koo siif ñu ñëw ci saar bi nga xamante ne moom moo nekk surutu nuur di la lumière yàlla wax fa ay aaya yoo xam ne même histoire bi dafa daloon suñu yaay Aïcha nekkoon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon position sax bu dëgër ci soxna yonent yi ndax ñëpp xam nañ ne yonent bi moom la gënoon a bëgg ci ay soxnaam ginnaaw suñu yaay Khadija ndogal boobu dal ci kawam àndoon ak yonent bi voyage comme ku nit ku tuuti la woon taxawoon am jëmm te comme ñoom jigéen ñi magra lañu mooy maanaam dañ daan nëbb surtout soxna yonent yi saa salaam derrière rideau lañ daan wax ak ñoom te derrière rideau yooyu sax moo indi niqaab mais force la woon ci jabar yo si jabaru yonent yi sallallahu alayhi wasallam niqaab boobu noonu ku dul ñoom nag bu la neexee nga def ko bu la neexee bu ko def. mais jabar yonent yi da nga daan wax ak ñoom derrière rideau mooy da nga doon wax ak ñoom te doo leen xool moom mu nekkoon bind bu ndaw bu ñu daan voyager comme genre dag yooyu ñuy jël di ko teg ci gëléem bi wala di ko jël di ko teg ci fas bi nga xam ne genre kees lay nekk day nekk ci biir moom nit ki ñu jël ko teg ko ci kaw gëléem wala ñu teg ko ci kaw fas bi loolu la ñu daan voyager bi ñuy ñibbi nag ñoom yaakaar nañ ne mu ngi ci biir ñu jël kii bi rek teg ko daal di dem ndekete boobu moom génn na nekku fa. mais comme yonent bi saa saa amoon na habitude suy voyager dafay am arrière cheval mooy fas boo xam ne day am ku koy war mais ci ginnaawam lay nekk moom balaa moo départ ñoom dinañ départ lu sore sori moom muy doog a jóg ngir lan ngir ramasser li nga xam ne moom la ñuy rotal ci ci voyage bi kooku moom moo tombé ak suñu yaay Aïcha mu daal di koy indaale biñ ne tëll Médine naafeq bi fa gënoon mag seen leen daal di tasaare xibaar bi ne Aïcha da doon njaaloo ak ki nga xam ne mooy waajooju indi ko rek message bi dal tasaaroo biir Médine ni mu tasaaroo biir Médine ku nekk jot ci jullit ñi daal di réer ñi naan am na ñi naan amul wax bi ne tulleeg màlli dem sax ba yoon saa salaam jël suñu Aysa delloo waat ko gër papam Abu Bakr ngir toog ba yàlla indi leeral waaye yàlla moom moo ko setal ndax moo wàcc ay aaya aaya yooyu moom moo fi nekk ba léegi te yàlla bi mu koy indi dafa jàjj ñi nga xamante ne mooy jullit ñi nu mu leen jàjjee mooy daf leen indi lawlaa xanaa du ngeen xalaat ne xanaa du ngeen xanaa xanaa xanaa balaa ngeen di wax nangam xanaa parce que avant histoire bi di am dañ leen indiloon ay atte ba pare mooy koo ku ñu ne nit nit ki njaaloo na moom nañoo taxaw dëggal ne man maa ko def yoon dal ci kawam su ko dëggalul na fekk ñeent seede ñoo ko gis yu jegewul ay coin bu nekk su fekkente ne nii loolu amul ki ñëw ne dafa njaaloo kooku la ñuy la ñuy dóor quatre-vingts yat atte yooyu yëpp ñëw moom ñoom mu leer seen bopp circonstance bi doog a ñëw lu waral ñu xalaat ci loolu moo tax ay yi ñëw ci ci suuratu nuur yëpp yàlla ñëwul rek setal directement yaa Aïcha mais dafa raisonné jullit ñi ba pare xanaa fàttaliku leen ne balaa nit ki di wax ne diw dafa njaaloo wala balaa nit ki ñëw ne diw dafa ma siif dafa war a indi ay preuve xanaa nit ki su amul preuve waxuñu leen ne moom mi indiwul preuve moom la ñuy dóor te sax dootul bokk si ñuy seede si jullit ñi raisonné jullit ñi ba pare doo ko setal suñu yaay Aïcha tey ay yooyu mooy dem ba léegi tey suñu suñu circonstance bi ñu dund ba suñu 14 jours doom dee ci bu ñu jëloon alxuraan ndax loolu dina am waaye dañoo jël alxuraan sànni ko ci ginnaaw moo ñu juróom ñu dem ba am ci ay moor kon waxu yàlla dëgg la alxuraan bi ñu delloo ginnaaw moo ñuy indi indil jafe-jafe yi ñuy dund kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax téere yàlla bi circonstance bu ñëw rek ay ñëwee na par circonstance boobu circonstance bu ñëw ba ci nawet bii ñu nekk ba ci dund bu cher bii ñu nekk nii alxuraan ñëw na ci loolu parce que am na ñu fi jaar jaar ci ay bekkoor am na ñu fi jaar jaar ci ay inondation am na ñu fi ndox ay ndox alak lan la ñu defoon ba ndox yu alak la alxuraan indi na yooyu yëpp ñaata yonent ñoo ñëw yonent yàlla nu lu ko alak lu alak ay xeetam ndox inondation bu jéggi dayo bu bokkal ak suñu inondation yi nga xam ne niveau bi bu soree ba sore fii lay yem ndox bi kon nañu bàyyi xel alxuraan nañu delloowaat suñu bopp ci alxuraan ñu xam ne alxuraan du téere comme ni ñu ko jàppee rek livre nii téere yàlla la waxu yàlla la nañ koy jàng guddeeg bëccëg mu ñor ñu lool ci ñu bañ ko jàng rek ngir neexal baat ngir diw mën na jàng alxuraan ñu bañ ko jàng rek ngir barkeelu ñu bañ ko jàng rek ngir pour suñu bu ñu bu ñu ubbee kër bu bees ñu bañ ko jàng pour ay néew waaye nañu jàng alxuraan pour ñun si suñu jëmm fexe faram fàcce ay xam yàlla lan la namm ci ñun ñu taxaw ci lum ñu tere ñu bàyyi ko ndax lim ñu tere yépp mu ngi ci alxuraan lim ñu sant yépp mu ngi ci alxuraan suñ ko defee ni nga xamante ne noonu la ko yàlla bëggee dañuy dund àjjana fii ci kaw suuf balaa ëllëg wallahi al azim dañuy dund àjjana fii balaa ëllëg ak jàmm kon caabi bi mu ngi nii mooy téere yàlla bi di ndeyu mbilli gi nañ ci jox suñu kéemtalaay kàttan lu ñu mën ak lu ñu mënul ku ñu xam ak ku ñu xamul nañ ko ñaax ci téere bi nañu campagne doomu aadama yi jëme leen ci téere yàlla bi ndax ci loolu la ñu amee teraanga àdduna ak àllaaxira rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar allahuma arhamna bilquran wa jaalhu lana imaman wa nuuran wa hudan wa rahma allahuma zakkirna minhu ma nussina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alleyli wa atrafa annahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني سعيرا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله